ci combat bi mu am ci digganteem ak moo bébé mi lan moo dugal ci bébé mi adversaire la comme adversaire yépp mu nekk mbër def lu nekk ci làmb bébé bis mi bu muy bëree cinquième combat su ma juumul xaw ma quatrième combat boobu man man maa ngi ci kaso bi te bu fekkee suñu borom dem na ba tey ñu war a bëre kon loolu dama koy sante yàlla sante ko ko moom parce que bu ko neexoon mu ne duma ma bëre Papa Boy Djiné am na si droit te mbër la mais jàpp naa ne yàlla dafa namm loolu xëy na bu bëgg ko dogal te jotagul ñu war a jëflante war ñu war a bëre ba lu ma dugal si moom pour ma man moom ndaanaan la te bërekat la te macha allah su bëree mu neex bu feccee mu neex man nag mënuma dara. xaw ma dara mënuma xeex mënuma bëre mënuma fecc mënuma dara waaye sama waxu démb mooy sama waxu tey sama objectif ak li nga xam ne moom laa gëm te si kàttanu yàlla mi nga xam ne yàlla suñu borom mooy may ndam incha allahu rabbi man maa ngi liggéey loo xam ne si kàttanu yàlla su fekkee moom mooy tax Bébé Bis ma daan ko si kàttanu yàlla dinaa ko daan donte mënuma bëre nag mënuma xeex amu fit ñemewuma tàppet laa mais si kàttanu yàlla bu neexee yàlla. suñ jëflante ba pare ah yàlla baax na daal. mënuma bëre aw ma doole aw ma fit loolu la yaa ko wax ñun waxuñu ko mais est ce que xam nga Bébé Bismi ndaanaanaan parce que da nga jógee ci defet moom tamit am na ci lu mu jógee nga dikk jël ko am mbooloom bay boo xamante ni papa saa boo ñëw ci làmb dañ lay topp. te chaque jour euh, des fois li ma ko wax naa la ko sànq ci biir waxtaan bi lu ci bay gëm bu ëpp ak euh, am fit bu ëpp day bokk ci li lay ñàkkloo say combat te waa géej waa dafa am fuñ na teg est-ce que yaa ngi sóorloo sa diggante ak bébé bis mi ndax moom tamit ñu ci bëri combat mujj nee na manqué nga doole moom tamit nangu na nangu na leen loolu ba nee na bu simee ko combat bi di ñëw ñu ci bëri euh, dootuñu waxatu loolu leneen la ñuy wax waaye loolu ci bokk. sama combat man ak bis bébé bis mi moom bu baax. donte làmb doole moo koy gañe mais maa moom sama làmb ak moom du doon làmb doole. du loolu bu ñu ci eggee moom dina ko xam. Ah, <laughs> lu ma leer ba leer ba leer ba leer man du doon làmb doole. doole daa am fu muy yem mais li ci des xel moo koy mottali bu ñu jëflantee ba pare la maximum la maximum. Sénégal dina am pas bu ñu ma jëlee yóbbu ma si beneen pas suñu bëree ba pare man ak Bébé Bismi su neexee yàlla ak yonent bi. maanaam bu làmb ji jeexee fañ doon teg kii di Papa Boy Djiné dinañ ko fa teggi yóbbu ko feneen si kàttanu yàlla parce que man biir na ma biir yàlla si sama gëm-gëm nag laay wax waxuma affaire sëriñ wala ñaankat wala dara déedéet ci sama gëm-gëm. moom na def loolu ci xelam na def si boppam loolu. moo ngi lay Bismi mhm. moom na def loolu ci xelam def ko si boppam moom làmb ji lu mu ci bëgg rek ci kàttanu yàlla lu mu ci bëgg mais man soxlawuma lu yàgg man lu mu ci bëgg bëgg naa ko te soxlawuma lu yàgg. <laughs>